retour bi. retour bi moo faible Pierre mi ngi mi ngi en ligne euh, mais dégguñu ko ñun bu baax donc monsieur la ministre Alioune Ndoye ñu ngi lay nuyu. alors euh, nga dolli ñu ci waxtaan wi rek dégg nga liñ ci wax xëy na yaatu na dommage bi ñu bi ñu bi yéex a dugg bi ndax waxtu wi commencé nañu tànc mais ñu cëral la si rek nga wax ñu sa gis-gis ci. waxtaan bi waaw dama daanu ci seen émission. ok am na yu bëri yu ma ci waaye nag euh, wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ginnaaw bi ma nuyoo ñi fa toog ñëpp. Mm-hmm. Euh, am na ay kàddu yu bëri yu ma dégg franchement damay jàpp ni euh, dafa nekk à la limite de ce qui est vrai am na sax ay kàddu yu may ñaawlu parce que yenn yi day nuru accusation parce que bu ñu suñu mbokk mi Cheikh Yérim bu naan le PS et cetera comme bu dee man aujourd'hui je suis. Euh, responsable de certaines pratiques c'est presque une affirmation mm. yi ma ci fortaatu rek suñ mbokk mi nga xam ne pêcheur la bu wax na ci moteur yi am na benn précision bu ndaw boo xam ne am na ci solo mooy l'État n'achète pas des moteurs pour les acteurs waxal wolof ñu mu gën a yomb waaw man xam nga léegi nag man dama bëggoon sax sëñ bi nga invité ma ci sa émission bi parce que vraiment mm. dana jafe trop ñu mën a euh, tontu yenn yi comme ça mm. mais wax ni par exemple boo jëlee moteurs yi état bi jëndal moteur ab mool moom mi wax xam na ko nga dul état li mu mën mooy <clears throat> ne la dama lay subventionné yaay dem jëndi sa moteur yaay tànn sa marque état nag mënul imposer par exemple ne bu dee Yamaha am na nit ñi xam nañ ko li ñuy wax benn dealer régional maanaam kooku rek mooy yor sañ-sañ jaay loolu ci région bi ñun loolu bokkuñ ci organisation boobu tey dañu def suñu naa appel à manifestation d' intérêt ñii mu intéressé programme boobu ñoo tontu te ci ñooñu la pêcheurs yi dem jëndi seen moteur donc du état muy jënd baax na baaxul cher na cherul bi nga ne moteur 60 chevaux xam nga ni ëppul ci li ñuy jënd wax ñu li moteur 15 chevaux bi di jàpp li moteur 8 chevaux bi di jàpp ñenn ñi tey 1 million 40 mille la ñuy jënd seen moteur état di leen jox 1 million kon nag loolu dama bëgg quand même mi. nga rafet lu genre liggéey boobu ci li ñu liim rek carburant bi da nga ko xeeb waaye Sénégal lañ ne nekkuñu Gambie mais état buy dugal huit milliards de subvention ci carburant boobu rafet nañ ñu reconnaître ko mën naa dem ci yeneen wax nga ni li nga soxla mooy ay port de pêche état ngi ci ndegam port de pêche bu buddoo di quasiment mu ngi yegg parce que liggéey ba yegg na fi ne ni yemb na ci ay installation la ñu ne damay jël exemple boobu pour bañ a jël li ñu wax yëpp mm-hmm. bu ñu naan aussi wàllu licence mbokk yi mais nangul leen ñu leen aussi buñ ko waxee licence yi fi may wax ak yéen nii yokkuñ ko ci Sénégal loolu dafa am solo boo jëlee nag période bi nga xam ne de tout le temps période bi moo sax du nangu dem géej parce que xam na ni jën amul. Hmm. période hivernale moo tax campagne bi ñu koy tëj campagne bi ñu ngi koy soog a ubbiwaat fan yi kon nañu comparé ci fan yi di ñëw liñ fiy wàcce ci production ak li nga xam ne amoon na ci période yi passé bu ma juumal ci chiffres parce que damay wax ni dama leen dab. Hmm. mais au moins débarquement yi mën nañ ko xayma environ cinq cent mille tonnes fii ci Sénégal. pêche industrielle boobu ñu singali. Hmm. dépassé wu quinze pour cent ci débarquement yooyu. donc la ca des ay débarquement pêche artisanale la loolu am na solo. kon dañu teg bu baax man maa ngi organiser incha allah. Hmm. des journées plusieurs journées de nécessaire pour ñu waxtaanee ko nañ ko teg ci table bi. parce que affaire licence yooyu man man nangu naa n'importe quelle invitation ñu wax ci. Hmm. am na ay publication ñu laaj pare naa ci pour pour l'instant parce que dama doon saytu yéen ni bu teg ko ci yoon. Hmm. donc mbokk yi dama bëgg. parce que l'information yi capitale elle est hmm. importante. mooy yóbbaale ñu bëri. mais tey dafa am lu bëri yoo xam ñu ngi koy dugal ci bopp nit ñi bu ñu jëlee la euh, Union européenne bi ñu wax nii. day mel ni ñu ngi koy soog a xaatim ñun. te yàlla xam na ni balaa may toog sax loolu weesu na. mais jàpp li fi amoon démb. nga xam ne Union européenne ci ay accord am da daan napp toutes les espèces quasiment loolu ci ay accord ñaar ñett yi weesu dindi nañ ko pour maintenant le restreindre uniquement aux espèces tonidées cinq cent mille tonnes laa lay wax ñuy wax waxi dix mille tonnes de thon moom mii médoon xam ne ni du nappi thon boobu bu koy nappi rek na ma wax nan la koy nappi ji ak fan la koy nappi du ko nappi donc espèce quantité boo xam ne tey état bu ne dañu lay jox quota ne la quota bi nga ci am droit au mondial fesurfise boobu boo ko nappul c'est des espèces qui migrent yuy dem feneen boo ci jëlee dix mille jox ko ay nit waxul ne maa ngi koy def dama ne lépp mën nañ ko defaraat mën nañ a defaraat mais dama bëgg ñu delloo ko ci place am. alors une question monsieur le ministre. monsieur le ministre oui Aïcha. ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi. waaw ñoo ngi lay nuyu dama la bëggoon laaj rek. Euh, ton boobu noonu euh, ndax tey Sénégal mën na am ambition am l'équipement nécessaire mhm. pour di ko nappal boppam. am toñi loolu aussi dafa tàmbale xam nga. accord yooyu bi muy am amuloon benn équipement boo xam ne sénégalais boo ko doon natt xaw ma ndax ñoo ngi dégloonte de. tey dégg nañ. voilà ma ne amuloon benn équipement waaye tey fi ne nii armateurs yi am na ñu commencé am des armements sénégalais. qui commencé à s'attaquer à cette pêcherie là. tey am na ay structure ay armateurs yoo xam ne commencé nañ dugg ci loolu di profiter sax ci accords yi ñuy signé ñun ay Cap-Vert yooyu di yokk ci tonnage ba ñu am droit. xam nga. suivant l'espèce damay jëlee par exemple le thon obèse la Sénégal ni muy dee yëpp mille trois cent mille trois cent vingt trois tonnes rek la ci am droit napp pour vous dire que c'est par espèce la ñu war a réserver hmm. wax ngeen waxi transformation mais fii ci port de Dakar commencé nañu am ay industrie hmm. yu transformer produit bi di ko exporter fii ba États-Unis donc évolution yi am na il est bon ñu xam ko. léegi am na benn monsieur le ministre nag. Euh, ma interpellé. da nga ma interpellé mais. ñun ñun li waxoon rek moom nga wax. c'est-à-dire dañu wax ni parce que bu ma déggee monsieur le ministre. oui man la Cheikh Yérim. waaw sëñ maa ngi sant yàlla bu baax ma ne comme da nga ma interpellé. déedéet yaa ma interpellé kay. mais yow li nga waxoon li ñu wax rek nga wax. Hmm. parce que boo déggee nga ni dafa am espèce yu ñu ciblé. pour loolu la Union européenne mën a napp loolu ça répond à un impératif maanaam da nga bëgg a wax ni du espèce yëpp la ñuy napp. donc ñu ngi ci thème raréfication bi ak nu ñuy def ba sauvegarder yenn espèces yi n'est-ce pas ñun loolu lañu wax transformation bi aussi nga ni quai de Dakar am na ñi ngi lay gën a ñaax <coughs> c'est très bien ñi ngi lay gën a ñaax transformation bi ñu gën koo yaatal ba ba pare monsieur le ministre avant ngay dugg sa collaborateur bi ay Aïdara bi mu waxee lu état bi def yëpp ci pêche bi ñun ñëpp dañ ko rafetlu même Modou bi doon contesté ñun dañ ni ko danga war a accepter ni am na ay avancé hmm. mais nag monsieur le ministre yaa ma gën a xam ni euh, lu jëm ci lekk dafa stratégique te fi mu toll nii tubaab yi bu fekkee ni ñoom ñoo yor jën yii ñun duñ ci duñ ko duñ ko xax jege ci àdduna loolu dafa am donc pourquoi est-ce que ñu war a xaar ay tubaab di leen di jox ay quota ci thon alors que ñun mën nañu wut ay thonier nappal suñu bopp suñu ay thon defar ko fii exporter ko am ci xaalis. waaw maa ngi wax pêcheurs yi gën a am seen pouvoir d'achat gën a baax. allez ñu doon tuuti tontu léegi nii loolu. waaw processus la boo xam ne tàmbale na fii ci Sénégal. ah mais c'est bien alors. il faut le renforcer donc. dama ne. Uh-huh. tàmbale na fii ci Sénégal ci ay structures sax yoo xam ne pour les accompagner. état ci boppam dafa jël participation pour loolu mën a ne. Ah, muy benn. c'est très bien ñaare bi damay wax damay jël par exemple li ñuy lekk fii Sénégal di ko napp yenn yi. Mhm. boo jëlee par exemple les démersales côtières fii ci Sénégal depuis 2016 la ñu jëlee toute attribution de licence ci espèces yooyu. 2016 mhm. ça sa combien d'années. 2006. et et cetera et cetera donc amalgame yi daf ci bëre bon peut-être que on peut ça peut se justifier mais ñun ñu ngi ci liggéey boo xam ne changement nag yombul parce que. Euh, war ngeen ma nangul ni bu mu ñëwoon xëy na euh, laaluma dara peut-être que dana am jàmm. Papis monsieur le ministre Papis Diaw une question ñu bëri bëgg nañ poser question mais c'est le temps ki nous est. maa ngi lay nuyu. maa ngi fay waaw et di di di di commencer di tooñ parce que maa ngi wax sànq ne xëy na moom. Ah, dafa am malchance su nekk ministre de la pêche bu tombé ci contexte bu difficile xam nga ministre moom affaire te seen saa yi nga tombé ay situation yu neex yenn saa yi nga. il n'entend pas. yaa ngi may dégg. waaye mën nga reprendre déggu ma la bu dama la wax dama doon tooñaale au début quoi maak euh, acteur bi di wax na yow da nga am malchance su tombé si période bu day waa euh, ci ni nga nekk ministre am na ñoo xam ne dañuy am chance yow xëy na dafa bëri ay difficultés mais sànq yaa ngi wax léegi ay. Euh, sëñ bi Diaw déggu ma la à ngeen ma ma teg télé bi parce que. bon. waaye. Hmm. waaw léegi yaa may dégg c'est bon. allo allo waay. avec la waaw da euh, sànq dama dégg léegi bi ngay wax yaa ngi wax euh, waxu quota euh, ak waa Union européenne et tout mais est-ce que du foofu mooy mooy problème bi monsieur le ministre parce que dama gis ne affaire souveranté dafay ñëwaat parce que sànq sax yëre yëri mu ngi koy wax boo demee Union européenne boobu ñuy wax tey aujourd'hui ñoom si ñu seen biir ñoom dañoo diviser wu xam ngeen Brexit maa ngi fii mais tey problème négociation entre la Grande-Bretagne ak ak ak Union européenne dafa am zone euh, pêche bi ak pêche bi quelles son les zones à pêcher fan la ñuy amee c'est un gros problème ci Brexit bi entre la Grande-Bretagne et les et l'Union européenne donc boo waxee quota boobu ngay wax noonu lu ñu signé pour tous les pays concernés est-ce que du ñun Sénégal foofu la ñu amee problème foofu la ñu war a amee courage ñu ñëwaat revoir un peu pas oui moi c'est ça ma préoccupation parce que je vois que ailleurs c'est un conflit très sérieux très ngay wax nii très vraiment allo. oui. bon yàlla décalage bon je pense en tout cas ci wàllu euh, quota bi ñu jox euro européenne. Hmm. dama bëgg rek ñu jàpp ni tey bu bu doon espèce euh, côte loo xam ne Sénégal xam nga est loolu li mu nekk en très en très haute mer moo tax au niveau mondial ak justement la gestion durable de ces ressources nit ñi tënku ci benn organisation internationale loolu lépp dañ ko war a xayma du façon d'accord naag yéen hmm. pour justement assurer la la la durabilité de cette ressource la léegi bu doon ressource la boo xam ne ñun buñ ko nappul mu nekk fi amaana duñ ci li ngay wax nii danañ dañ ci ànd ak yow hmm. mais dama jàpp ne ku xam ton notamment ton yi ñuy wax ay paludoog yooyu nekk suñuy suñuy géej euh, ñaar ñetti weer lay ne ci Sénégal boo ko nappul mu ngi feneen hmm. ci loolu la ñuy jox tey Union européenne ci quota boobu mooy ci organisation mondiale bi ci wàllu woowu mooy bu ñu nee Sénégal par exemple quarante mille tonnes nga am ci espèce bi boo lëgee bu nappee quarante cinq mille tonnes cinq mille tonnes yi da koy restituer en terme de quota à d' autres bu Union européenne nappee Sénégal dix mille tonnes par exemple France napp ci cinq mille wala Espagne ci quota moom lañ koy génne waaye duñ ko génnee ci quota Sénégal mooy wax ni loolu bi ko nit ñi di négocier état demul négocier ko en catimini les acteurs principaux notamment industriels de ce pays. ñu ngi woon ci ñi doon en tout cas les observateurs teewee ko fekkee ko kon tey bu amoon peut-être pour man scandale ñooñu waroon luñ ko génne depuis parce que gis ngeen ni bi ñu fi waxee waxi licence ba naan ay licence chinoise ñu ko teg sama ndodd bi gis ngeen ñooñu ils étaient des acteurs présents en tant qu'observateurs donc bu ñu ne état dafa dem saax saaxe mbir yi daf ko en catimini mm-hmm. li xew fi mu ne ni du lu bees Union européenne dans ses procédures mooy ratifier loolu kon aussi loolu dama bëgg nit ñi leeral ko bu baax. allez mais comme ni nga ko waxee tey commencé na am ay acteurs ay armateurs sénégalais yu at yu attaqué euh, nu mu tuddi euh, ressource boobu. am na fii nga jël ay contact nga jël ay Casa fii ci port de Dakar yoo xam ne tey ñooy transformer loolu di ko def de façon industrielle di ko exporter fi ba États-Unis c'est le parmi les rares qui la ba au niveau alimentaire xam ngeen ni mu sévère donc évolution boobu mu ngi tegu ci yoon bi. merci merci monsieur le ministre dégg nañ la bu baax euh, xam naa beneen yoon comme ni nga wax rek euh, ñu dalal la ci plateau bi incha allah jërëjëf. pour tout ces précisions boo na rek kay voilà waxtaanee sama kër way koy toj kay ma rek. <laughs> xam nga xam nga nag xam nga nag euh, da ngeen bokk ci kuréel gu yaatu koo xam ni ku fa ñëw rek bokk ci yéen. ci yéen lañ ko mën a tuddee. et defe naa ko def juróom-ñeenti at. ci ministère ba lu mu wax mën nañ ko jàpp téere. vraiment merci merci beaucoup non dama dab seen discussion. merci merci